loo am si xéewal war nga koo mën a muñ ndax dadul yàgg ak yow loo fa dal loo fa dal si natt war nga koo mën a muñ ndax dadul yàgg ak yow àllaaxira ya nga xam ne moom kër la ku fa am xéewal day wéy ba faaw ku fa musiba daal day wéy ba faaw foofee lu ñu fa am si xéewal nanu ko xeeb te wuti lu ko lu ko faaw waaw lu ko faaw mun fa ñàkk it mun ko jéem wuti bala ñoo dem ndax nit kuy dund te ak ruuxam génn ko yaram lu mu amul sa yàlla moo ko xañ boppam waaye ko sab ruuxis génn saw yaram loo amatutoon dootoo ko am mukk loo amoon sa nga yem yàlla nu yàlla defal yàlla defal ñuy taw fi suñ moor booy dund day mel ni doo fi jóg day mel ni nit ñi lan lay tàggi ngay xëy di rabi rek damaa demoon si saraxus diw hmm. damaa demoon hmm. bis dina jot nag yow moom mu lay dem si saraxus <laughs> bis bis bu jara bàyyi xel bis ba jara bàyyi xel sëñ Mor ku xam yàlla hmm. ak na mu toll xam yàlla ak la mu sañ xam yàlla ak la mu man doo xeeb ba di sa def dara doo xeeb bi dara lu mu digal lu mu digle ba ba say bàyyi dara ndax lu mu digle mën na saa denc lu ne ak lu mu tuut tuut waaye lu mu tere mën na saa denc lu ne ak lu mu tuut tuut sëñ Mor ak mooy si boppam mooy hmm. yàlla duunul luy tuuti hmm. xam nga lu tax hmm. da ngay xool yàlla materi na mu toll mooy gënoon a la toll yàlla nag daraam daa tuuti ak jaamu yàlla it duunul luy tuuti da ngay xool yàlla mu ko digle na mu toll noonu la jaamu yàlla nga toll waaw nit yàlla yi fa ñuy xoole ba tax mooy yàlla ñu koy a def mooy jëmmi suñu borom ji la xool ba doon xam mooy gu naw ak mooy gu mag dañuy jàpp ne lépp mooy yu mag la ndax jëmmi yàlla ni mu toll sañ si yow lépp ni la nangam bu ko def nga dem def ko xoolal bu ñàkk teggin sa doom di nga jur rek yow tey soo ne ko bul def nangam bu ko defee boo ko mënta faj dina la naqari sàkkaak sa borom bi sa borom bi la moom da ngay xool yàlla mi la bind moom la mhm. ne la defal ma lii mhm. jox la loo koy defee mhm. jox na la xel mi jox na la cër yi jox na la wér gi jox na la lépp luy tax nga man ko ba noppi mën la defal ngeen ko dama defut xool bu ñàkk ko jom la moo tax foo fekk waaw moykatu yàlla ku ñàkk jom dong la foo fekk toppkatu yàlla nag daa gore rek waaw du coogee ne day jox yàlla ak xam yàlla kenn mënu koo jox ak xam waaye daa gore hmm. kon góor leen si topp yàlla te bàyyi fa mi jërëjëf la góorgóor leen si topp yàlla te bàyyi fa mi góorgóor leen si topp yàlla te bàyyi fa mi amiin amiin jërëjëf la dana ko def loolu ma leen waxoon léegi dinaa si delluwaat waxaat leen ko ndax ñor na ma hmm. lu ngeen mën di gis si àdduna lu mu rëy rëy rëy hmm. ak njuba ko gën lu ngeen mën di gis si àdduna lu mu rëy rëy rëy ak njuba ko gën lu ngeen mën di gis àdduna lu mu rëy rëy rëy ak lu ko gën kon nañ sax si ak njub sëriñ bi ñuy tuddoo ngeen di ko tuddoo hmm. kenn mënta jariñu si moom te juboo waaw kenn mënta jariñu si hmm. hmm. moom te juboo waaw kenn mënta na wax naan jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla jaamuli woon ma leen yàlla saa bopp laa doon jaamul yàlla loolu sëñ Tuubaa mos na ko wax maa ngi ba may jaamu yàlla jaamul ma leen yàlla saa bopp laa doon jaamul yàlla waaw loolu sëñ bi ko wax loolu ko bàyyi ñëpp dem jaaru jaam jaam waaw loolu mos ko eh, dajale maa ngi ba daje ma wax leen ko ba may jaamu yàlla ya, hmm. defaluma leen ko woon saa bopp laa ko doon defal mos naa wax sëñ Bay Saari ne hmm. ah, ko waaw fekk waxtaan ba fu ngeen fekk yor ab siyaari saay saay la rek bu toog ñu jox addi ndax ndax la ko war du tala ba loolu sëñ Bay Saar dal ñokket waaw jël kaalaam da di koy daa tuuti woon hmm. jël kaalaam da di koy takk si ndigg li ba mu dëgër hmm. waaw moom yàlla la ko daan wax oh, waaw mu ne ko man de moom bokkuma si ñu ngay wax hmm. ndax maa ngi ni ñàdd maanaam maa ngi jeex taat sëñ mu ne ko baaba Sarr boo nee ñàdd ñàddaloo ma sa bopp nga ñàddal ndax bokkuma ak yow biir bokkuma ak yow bàmmeel <laughs> waaw bokkuma ak yow biir bokkuma ak yow bàmmeel kon nag mu ngi noonu kon na ngeen gën a góorgóorlu na ngeen gën a farlu na ngeen a tege si yoon sëñ Mor liggéey sa alal mu leew la mm-hmm. nga di ko jox nit mu lay jay mm-hmm. naan la àjjana rek nga jëm na sam xel dal mm-hmm. te jaamuloowu la yàlla mu ngi lay war mu ngi lay nax te borom xel nag buñ ko naxee benn yoon wërta koy nax ñaari yoon sa lañ ko naxee bàyyi leen fomi nan bàyyi fomi nanu bàyyi fomi te toppi ji yàlla bàyyi fomi te toppi ji yàlla bàyyi fomi bon ji rek boo si bëggee dara da ñaq def ni sëñ xaayi mes mi fu nekk di nga fa dugg mhm. ngir la nga fa bëgg nga doon koo am mhm. te loo fi am lu mu rëy rëy dina dem bàyyi la fi wala nga dem bàyyi ko fi kon àllaaxira ja nga xam ne loo fa xis am mhm. waaw du dem ba noppi te doo jaamu yàlla ba dee rek waaw jaamu sa borom ba keroog ngay faatu bu yàlla wax loolu yonente bi kon ku dul bi la war a wax